point 2 kaddu gi di bayiko ci al almahad bu cheikh omar al fouti radiyallahu taala an ci escad urbam sen mbok dara imam mam gortop delsi waat na ak yéen ci sen émission siratul rasul sallallahu alayhi wa sallam min khilas dahab fi sirati khair al arab émission bi ñu tuddé jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istuwaaram te ñu tànn ko ci biir dahab bu suñu maam cheikh alxaaji malik radiallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim amin tey nag ñu dalal it mbokk yi ñu ko daan wettalikool cerno saar mansour alxaaji mosow sow ñu ngi xaarit suñu mbokk góora soog ñu fas yéene dem ci alfasl saabia fi zikri wafaati ummihi wa jaddihi abdilmutalib وولاية أبي طالب تربيته بعد وفاة جده وما يتعلق بذلك غورغينينا فصل شابيتر بيغا خامني موي بوجوروم نياريل بي نينكو ديف تي تودو فاتو ويجرم وجيين مي سخنا امينتو waye itamit dana waxale fatu mamam mu gor mamam gor ñukoy wax abdul mutalib shaybat alhamd dina ci waxale fi mu tuxoo ci loxo bay tëxam ca mooy baayam bu ndaw bokk ak baayam ndey ak baay muy euh, Muxiira wala Abdu Manaaf te ñu gën ko siiwee ci Abi Taalib mu méngoo wàllu yaram gannaaw bi maamam góor faatoo ak yee ca aju fasl bi ci loolu la jëm góor gi radiyallahu mu ne wa ama arbaatin aw sittatin halakat ummu nabiy بأبواء أو الزحم في دار رائعة قبرا لها ذكر القاموس فيها بعين غير منعجم كانت تريد إلى الأخوال زائرة آه، وفي الإياب القضاء من الحكم وهام أرباها تلع ستاتين هلكت ابو أبوا أوي صومي على نبي ليم أجمعين سلام ربنا دائي من عم بسحبهم وهم أرباها ستات هلك أم النبي أبوا أوي سحن ينبي على نبي وآل لين أجمعين سلام أنعم بصحبه في دار رائها سكر الخاموس فيها بعين قير منحجم مدنا على نبي ليم أجمل سلام على بنادائي آه. من عام بصحبه من الإيابق أيوة، أيوة. دعات من الحاكم مدننا على نبي وآه ليم أجمعين سلام ربنا دائم من ما بصاحبه مولا لنأك سيوطي نيل المدينة نجاة لا تحل خولا أيوة. هو الله مولا لنا على نبي ليم أجمعين سلام ربنا دائي من عام بصاحبه مولانا لي أنا ربك نجسي متصف وساقف من ننسى من العدم مدني على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي منع ما بصحبه لنا وأم أيمانا أيوة بعد الأم تحمله لجده شيبة شيبة ديري دلعتي مدن على نبي وعد ليهم أجمعين صلاة ربنا دائي من عام بصحبه مولانا في سابع العام إيه والهدي أعطاه آه. به شفاياه رماد في شدة العالم مدننا على نبي وعليهم أجمعين صلاة على دائي من عما بصحبه مولانا هو الله أيوة. من طاب يقول له دعواه وهو فرج إلى الحرم مدن على نبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا ما نعم بصحبه مولى الليل وما أربه أيوة أو ستة حلقت أم نبي أيوة أبو إن أويسو ما مدن على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي من أما بصبيمي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه من وهلكت وهلكت فاتنا أم النبي way jur wu ki yàlla solo sallallahu alayhi wa ama arbaatin atum ñeent ci atam sallallahu alayhi wa aw sittatin wala atum juróom benn te loolu mooy geesu lim la waxoon ne ci juróomi atam lañ ko andiwaat ci yaayam mu bàyyi ko ci soxna xalimatu binti saad ca déwén sa la way juram wu jigéen génn fan la génne àdduna mu ne bi abwa in ci place yu ñu wax abwa place la bu nekk diggante Madina ak Makka waaye Madina la gën a jege awi zuxam wala boog zoxm nga xam ne moom it ci turi màkkate la bokk waaye wee tax mu fatxaa ko waaye zuxmu la bi fat bi sukunil xaa i mu ne zakara tudd na alxaamuus ci fasl raa ci buntu ayin ak raa boo xam ne kenn tombuk ne tudd na lan xabran bàmmeel lahaa ñeel soxna amina fii daari raia ci kër raia mel ni ni ñuy waxe quartier yu ñu ne kër Matar Ndaak waaw fekk quartier la fii daari raia ci kër raia fiihaa ci makk bi aynin ci buntu ayin xayri mun ajimi boo xam ne tombuñu ko boo demee ci qaamuus sax yaxal na ne e, place bu ñuy wax daari raia muy gox boobu di quartier boobu wéy juru sallallahu alayhi wa sallam wu jigéen soxna Amina foofa la tëdd góor gi bi ñu ko andilee doomam mu bàyyi ko ci soxna si ko doon nàmpal muy soxna xalimatu mu toogoog moom diir ci la waaje ngir yóbbu ko ci ay nijaayam ca mooy nijaay yi maamam nga xam ne foofu lañu bokk muy bani najaar di madina tey moo tax mu ne kaanat nekkoon na soxna si turidu ilal axwaali nam jëm ci ay nijaayi maamam te mooy ay nijaayam zairatan mbir mu muy ziyaare ji bokk yooyu ci wàllu meen mu dox aajo ba ba mu mat muy wàññeeku waaw ngane ba ngan ga mat muy wàññeeku góor gi nee na wal qadaa mu xasru ko ndax woy wi wal qadaa u dogal ba atin aji dikk la minal xakami ci aji tëral ji bépp mbir fa mu yelloo tëdd fil iyaa bi ci waxtu wàññiku ko wala dogal ba dikkee soxna si wuyu boroomam ñu ne keroog bi nga xam ne tëdd na mu nekk ci wetam ñu ngi ànd ak ummu aymana barakatu alxabashiya dana ko tudd ci kanam ñu ne am na woy yoo xam ne soxna si wax na ko ci tëraayam boobu naan baarakallahu fiika min gulaami yabna allazi min xamati alxamaami ba woyee jeex waaw waaw fa anta mabusun ila al anaami tubaasu fi lxilli wa fi lxaraami ak ya ca aju yëpp booy wa jeex wa kullu jadidin baal wa kullu kabirin yafna wa ana mayitatun wa zikri baaqin wa qad taraktu xayran wa waladtu tuhra summa maatat radiallahu taala anha mu ne dafa wax ne ah lu ku dund da nga lu bees dana ràpp mm-hmm. ku mag jeexal man nag maa ngi nii ci teraayu dee waaye sama tuur dafi des ndax bàyyi naa fi jëmmi yiw jur naa jëmmi sell ak laab kon nag sama tuur man du mën a fay day doon tur wu éternel ànd ak jamono loolu defe naa ne ñëpp teg nañ ci bët waaw buñ ne woon aminatu yi nañu génn dëkk bi hmm? bi dana xaw a wéet hmm. nee na loolu la wax mu ne foofu la dogal bi dikkee soxna si génn àdduna mu wax ca la mu cay teg nag doog a jàll mu ne xakaa nettali na assuyuuti abdurahmaanu suyuti radiallahu taala anhu borom xam-xam bu mag boobu nay leen maadi nay ni amuk ñaari mbellam ca mooy cosaanam najatan ak mucc ca mooy texe góor gi ne laa tuxil bul jombal xawlahu waxu imam suyuti ndax wallahu bur yàlla dul karami borom tedd nga la waaw ci ëpp na nag tedd ngam mu koy moyal sang bi nga xam ne moom la baaxee def ko muy balluwaayu tedd nga yi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne li anna rabbaka ndax sa borom ma muttasifun bil ajzi doonul ku melawoo tële waza ca dekkal ku faatu woon wala boog wa wa waza dekkal ko faatu a xaf moo gën a woyof mbir min insha in ci sos loo amul min al adami jële ko ci ñàkk ki kerye lu amul woon kay loo am uh, uh, faatu mu dekkal ko loolu tëwu ko wax ba mu ca wax nag mooy mbir mi wax naa ko ci gàmmu Chérif Ibrahim bi ñoom imam Moussa ma ne leen ma wax leen ci benn wax bu dee du ngeen ko laajaat keneen hmm. waaw <laughs> dekkalaat gi hmm. ngir baayam baayam gëm ko ak yaayam gëm ko du dara lu dul ñu am daraja soxbatu loolu tax yàlla may ko dekkalal ko yaayam mu woo ci lislaam mu gëm mu dekkalal ko baayam mu woo ko ci lislaam mu gëm ngir ñu doon saxaab waaye cër yee ca des kay am nañ ko ba noppi waaye bu ñu ko wuyuwul woon ci wooteem du ñu doon saxaabi ca doole dooley saxaaba nag beneen affaire la noonu imaam suyuti wax ne xaballahu nabiya mazida fadlin ala fadlin wa bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kada abaahu bihi fadlan latifa fa sallim falqadimu bida qadirun wa in kaana al xadiisu bihi daifa yàlla baaxe na yonentam bi mayeeti ko ndollent ngëneel ci biir ngëneel yi koy may wisati na ko ومدام مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا نح نعم. كنيوين تجاما بلا بسول نكم بوب مسح مومد مدون رؤوفا رحيما فأحيا أمه مدند للكيايم وكذا أبا لإيمان به ولن نجرنيو ويوكو تي دائرة الإيمان بنكو يوني مواتك فضلا لطيفة نلولو موين غنيل بوحامنا يتميت dafa làmboo sew sew mooy li ma la doon junj mu ne kon nag fa sellim nangul fal qadimu bi daa qadir borom bi nga xam ne mooy qadim sos lu am nee na loolu tawu ko waaye nag wa in kaana al xadisu bihi daifa donte xadis biñ la ci nettali ci dekkal sax dañ lay wax ne xadis bu doyee di la waaye terewul jëlal li ma la wax rek fadlan latifa bu ko laaj keneen mu ne bi mu faatoo ñu rob ko ci daaru raia ni mu ko waxee nee na wa ummu aymana soxna suñu wax ay aymana mooy barakatu alxabashiya waxoon na la ca la mu doon ne ca baayam jaariyatan jéewéer booba la alalam la waaye xorma la ko jox ndax taxawaay bi mu taxaw gannaaw faatu yaayam moo tax mu daan wax ne ummu ay ummi baada ummi arab yi di bëgg a rey seen bopp ndax der bu ñuul bi waaw ay la yéwén ummu ay gannaaw sama yaay mooy sama yaay barakatu alxabashi waaw mu jeex tàkk ci moom ci cofeel waaw ak cër ya mu am yépp nag moo tax mu ne wa ummu ay taxmiluhu moo yóbbu salallahu alayhi wa sallam baadal ummi gannaaw faatu ndayam li jaddi jëme ko ca maamam cheybat alhamd arrida kadi ku ñu gërëm al azimi kadi aji màgg kon ci ngay xam ne bu ñu ne soxna si moo ko yar góor gi moo ko yar gannaaw faatu yaayam góor fu mu yare rek jigéen a nga ca pegg taxaw taxawaay bu mat sëkk moo tax mu ne muy wax yi xew nag ci atam yooyu gannaaw bi mu ñibbisee mu ne fi sabil aami wal haadi ataahu bihi fa ya lahu ramadun fi shiddati al adab waaw wal haadi aji loolu kañ la fi sabil aam la la yore wàllu yaram mu ne nag wal haadi aji gindee ji atahu bihi dikkal na ko ci at moomu ramadun mooy safaayil wànnent woo xam ne shiddati al alam mi ngi ci dayo métti fa ya lahu yéem naa ko léppam dafa yéeme nga dara mu woyoful wànnent bi bi mu leen jaaxale góor gi ne hudi jëmeef na ko ila raahibin ci benn labbe tabbin bu xam paj yaqulu lahu ma nga naan ko moom ci boppam la waxal wala ko ko yóbbu mu ne ko dawaa uhu saafaraw wànnenti xale bi hmm. riiquhu mooy loru boppam bi ñii rek hmm. def loolu ba tey gis nga ko muy jeexital ci jamaj ci jamaj yii di xaw a sonale mooy def nii rek du def lu may mujj dem yoonam rek wana ma nga naan dawaa uhu saafaraw wànnent xale bi walla saafaraw wànnent bi riquhu mooy loru xale bi rek waaw bul sonal sa bopp farja dellul ak moom ilal xaram dellul màkk ga nga jege woon dawaa uhu riquhu waaw ci fi mu ko waxee ñu def ko wànnent wi dem yoonam nga xam ne kon dawa uhu riquhu rek waaw mu ne kon wal jaddu fi laami wal jaddu fi laami يمشي لمنسي يا سنين لكي يحنئ حوف الملك والإمام على ندي وعلى أجمعين سلام ربنا دائه من عما بصحبه مولانا آداه جامان أيوة، أيوة. بالمدي بشره خولي حولي شبخا غير متحمي مولانا على نبي ليم أجمعين سلام ربنا دائي من عام بصحبه مولانا كما خدا فيه أيوة. يصد تقي موسى إبوه من آل رويا ربي واحب اليتم مولانا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ما بصحبه لك ما خدا فيه أيوة. يستسقي مصاحبه من آل رويا وهو ربي وائب يتم مدنا على نبي وعليهم أجمعين سلام على دائه من عام بصحبه مولى آل ربي واحب اليتم من آل رهيا ربي واحب اليتم مولانا نعم على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي من عما بصحبه مولى لنا الزمان واي أيوة. فاتوا الجد وحات من وحاتم ونصر ونسل كرم مدننا على نبي وآه ليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بصحبه مولانا فيه أيوة نبي الحم عاد مناف من وسيتي جد مشفخ رهيم مولانا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائم من عام بصحبه من نفيه بإيهام أيوة قد رأى منه إلى سمي لأن بلا بلا بشرى سويه سمي من على نبي وعلى عليهم أجمعين سلام من هدائه من عم بصحبه مرني لا ما رآهم بحير ما يحرمهم وكان ليس يبالي في مرور صدن على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي من أم بصحبي لا ما رآهم بغير أيوة. خما يكرمون ليس يقبل في مروره يدنن على نبي وآليهم أجمعين الصلاة ما ربنا دائه من عام بصاحبه مولانا تقال فالبدر أيوة. عنهم في آه. حالهم خالف الدوه أيوة، أيوة. فتخليف لم يقوم أذننا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائه منع ما بصحبه مولا لنا فخام منهم فتن إياه مهتدنا وخائلا إنا, إنا سالوا مع القاسم مدنا على نبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائه آه. من عم بثهبه مرن لا ما رآه بحيرا ما يلأسه حزنا شديدا ونصارا إلى الإمام مدننا على نبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائه منع ما بصحبه مولانا لا ما رآه بأيوة رقم يلحسه لهلا شديدا ونسارا أيوة. إلى الإيمان ومدنا على نبي وعلى عليهم أجمعين ما ربنا دائه من عام بصحبه رضي الله تعالى عنه من أول جد مامم عبد المطلب في العام تجروم نياري أتم يمشي tukki na dox na libni zi yazan ngir ndokkeeli ji buur bu ñuy wax sayf ibnu zi yazan bi mu faloo dama ne li koy yuhanni ahu ngir na ndokkeel ko fil mulki ci nguuram wal imami ak naatu dund ndax xijaaz ci àtteem la nekkoon kon ñoom ñii kilifa xijaaz ñu def délégation bu xumb dem ndokkeele ji Sayf ibnu si Yazan góor gi nettali ca nag ci histoire bu gudd xanaa dañ koy cof ba beneen bi mu demee daal bokk naa ak ñoom dalal leen waaye mel ni ñu leen fàtte ba mu leen dalale ndax def nañ fa weer fekk booba dafa nekk ci recevoir délégation yi bëgg itamit lu mu waxtaaneek góor gi mm-hmm. ba mu demee ba féex ci la ko woo recevoir ko waxtaan ak moom ne ko daal ci suñu téere yi ñu jàngoon ci tegtal yañ ca am yonent mujj jamono gane na àdduna di ko ko waxe sor bu ne nag di ko wër danañ ci dellusi ba ca teeral ak moom daal yow mi yaay maamam baayam dundul bu boobaa kon làqatu amatu fi góor gi feeñu ko nag wax ko moom li nga xam ne moo am ci xale bi ak melokaanam ak yépp waaw mu ne ko lii lu leer naññ la téere moo ko yaxal bu bàyyi ko ci yàlla mm-hmm. ca nii la tëddi waaw ndokkeel ko ca mm-hmm. defal jox leen ay cadeau yu rëy lu euh, ku ci ne ca ñu àndoon ak moom moom mu dubleel ko ko ba muy fukk mu jëlee fa alal ju bari mooy tënk ko wax bi danañ ci ñëwaat moo tax mu ne ahdaahu hadi na ko jàmman alal ju bari ba ñuy tàggoo moom ña mu wa bacharahu bégal na ko bil mardi ci yonent bu ñu gërëm bi ne ko mooy sa boobu bàyyi ko xel bi asdaqil qawli ci gën jaa dëggu wax sidqan dëggu boo xam ne xayra muttaham tuuma topp ko ci mu ne kama xadaa naka la mujjee fiihi ci atum juróom-ñaareel bi yastasqi di sàkkoo baaw naan mu saaxibahu mbir mu muy àndaale xale bi lu mu ànd ak moom mu ne min ajli ruyan ngir digu gént goo xam ne soxnaam moom góor gi wu ñuy wax ruqayqatu bin binti abi sayfi moo ko gént ndax màkka dañu nekk ci bekkoor bu metti soxna si gént ñu ne ko ah, góor gi mel nangam ci melokaan bi bu àndee xale bi mel nangam bu ñu génnee baaw naan yàlla dana leen may taw soxna si yeewu melo yiñ ko wax ci góor gi la ko gis melo yiñ ko wax ci xale bi ci sët bi la ko gis muy Muhammad ibni Abdillah mu wax ko la mu gént góor gi def ko euh, taw wàcc moo tax mu ne euh, ba ñu baaw naa wa rabbi sama borom waahibul yetami maye na taw <laughs> yutum jam u yetim la <laughs> yutum mooy ay jirim daal dañ koy defaraat ama samani atum eh, ñett ci ay atam sallallahu alayhi wa wafaatul jeddi mooy faatuk maamam bi muy faatu zahanamin mbir muy muy boroomi tàndarma am na tool yi tàndarma waaye xanam la amit ci at ndax nuun juróom fukk la miim ñeen muy juróom ñeen fukk fekki haa bi juróom la muy juróom ñeent fukki at ak juróom quatre-vingt-quinze ans waaye booba it bàyyi na tool yi tàndarum moo tax mu ne wafaatul jaddi faatu maamam abdul mutalib cheybati alhamdi za fi ama samani atum juróom-ñett la ci atam sallallahu alayhi wa sallam ba muy faatu moom zahanamin di boroomi tàndarma waaye zahanam toll ci juróom-ñeent fukki at ak juróom quatre-vingt-quinze ma waxaale istuwaar kilifa yu mag yu faatu ci àdduma mu ne xaatimu yi mi ngay dégg xaatim di tudd ca uh-huh. nga xam ne ci moom la yem ku tabe sax ñu ne xaatim la ci tabe ci at moomu la faatu wa mi ngay dégg uh-huh. waaw ci yi la bokkoon ci at faatu zil karami kay borom tedd bu la neexee nga naatal ko ci maam mi jaddi bisil karam yi kay boromuk tab bu la neexee nga naatal ko ci xaatim mu ne fii ci juróom ñetteelu atam xada la mujj li janaabil ammi ci wàllu baytax bi abdi manaaf foo dégg abdu manaaf rek mooy muxiiratu mooy tur bi waaw mooy abdu manaaf abdu manaaf nag comme taawam taalib la ñu dàkkantale ko ñu ne aba taalib moo tax mu ne fii ci atum juróom-ñettam xadaa la mujj li janaabil ammi ci wàllu bay tëxam abdi manaaf min wasiyati jaddi ngir dénkaane maam mushfiqin maam mu yëram setam mu sopp setam rahimi maam mu yëram setam mu mel ni waxtu bi dab nañu faslu bi Eh, incha ni ñu ko digee danañu ci dellu siwaat ñu ngi dellu ziyaara ñëpp balu ak ñëpp ana ala nabi ala nabi wa alayhim ajmahin na salaama rabbina da'i man ma bisabi النبي وعليهم صلاة ما ربنا دائي من أما بصحبه وصليا يا إلهي وجزيا أبدا المختار في القدم FM 98.2 waay mu ne fes du ti ndeysaan